nabu eh, eh, eh, laala ñu la doon gën a gis théâtre na ko offo la waaw maa ngi si maa ngi ci théâtre dëgg gis naa ak ak laala da nga sonnoon da nga sonn si théâtre fu ne nga dem ko da koo jàng muy sa métier calfe lan moo tax nga abandonné ko non non non abandonné wu ma ko sax waaw gëj naa joué mais xam naa léegi rek incha allah. alors ah moo tax. dara xam nga am na boo nekkee si liggéey da ngay nekk si li di nekk si li bi ñu ci nekkee am na leneen luñ doon luñ doon euh, bi ñu nekkee ci théâtre bi ubbil nañu ay yeneen buntu xéewal ñu ngi raas si ñu ngi raas yi ñu ngi raas yi xëy na ji nag ñu bëri ci euh, ci site la ñuy gën a gis Lalla rawatina Dakar bi ci gërëm sama DG bu baax Amadou si waaw xëy na loolu moo tax rek jot yeeg yooyu moo tax mais maa ngi ñëwaat léegi ม่แม่ละะข้ามนานมันข้ามนานละเวลาครับข้ามนานนี้เลยเหมือนสีวาลุงกูที่จะทำบริบูรณ์ละมอดักดิลกิสอักเสกิมาสอักเสบอีมาดิมูอ่บ้าเหรอสิสิสิสิสิสีสแล้วมอดักดิลกิสไม่ชอตัวคนที่ชอบอยู่มันว่าลุงละลองไปแต่ข้ามนานนี้ไม่แต่เขาไม่รู้ละว่าแม่ข้ามนานลูกิส loo gis rek euh, xëy na wërsëg la loo gis wërsëg la tey euh, Thiès joué naa ak ñoom Marodi joué naa ak ñoom ak ñenn ñeen mais dama ne la théâtre forum ñun boo xoolee si li ma gën a def côté yi ñu def ci théâtre bari na ci biir loolu nag aussi yemuñu woon ci théâtre bi ndax théâtre ubbil nañu ay yeneen bu wal ñu dugg ci wàllum animation muy rajo dugg ci yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na guddi yi ñu toll nii animation bi moom moo gën a moo gën a fës mais ñu ngi léegi léegi léegi waaw ñu ngi ci ñëwaat léegi. mais yow nga abandonné sa sa sa sa kii xaw ma sa euh, troupe de théâtre ah nekkatoo fa demoon kii ba doxatoo. non yow yaa abandonné mais ñun ñun huit ñun bi ñu ngi woon Sorano ci journée mondiale du théâtre 28 mars bi passé waaw ñu ngi woon euh, euh, ñu ngi woon saraanoo bi ñu fa jógee aussi dem nañu ànd ak waa Arko Pikine ñu ta ñu ñu ñu ñu ñu ñu nekk foofu fa la ñu ndogo yow yaa abandonné mbay yow la yow la théâtre gisatul euh, mais ñun festival yi am yëpp ñu ngi dem ñu ngi ñu ngi toujours kàddu yara ñu ngi continuer suñuy activité yow lan moo tax doo fësal li nga xam ne ah, ay ay ay ay difficulté yi wàllum théâtre di am lan moo tax doo ko fasal mais da ngay jóg ci kaare nga gën a waaw yooyu nag xam nga ñun dañoo am ay kilifa ñun dañoo am ay troupe yu nga xamante ne moom la ñu jox am ay kilifa lu ci nekk rek bu ci wax jotee wala bu ci nangam jotee dañuy topp suñu ginnaaw kilifa yi suñu kilifa yi tamit chaque jour ñu leen di dégg ñoom jafe-jafe yi nga xamante ne théâtre bi ñu ngi koy am ñoom tamit aussi ñu ngi koy ñu ngi koy wax ñu ngi koy jàllale ba ci barki démb rek bi ministre bi ñëwee Sorano kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllum aar bi ñoom ñëpp jàkkaarloo nañ ak ministre bi wax nañ ko li nga xamante ni moom moo nekk moom mooy jafe-jafe aar bi moo xam mag ñi la moo xam ndaw ñi la voilà merci ah, noonu la demee Mbaye ah. merci Euh, euh, sama euh, ñi nga xam ne ñooy animateurs yi nga xam ne ñu ngi leen di soupçonné commencé di soupçonné animateurs yu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk di topp kaa yow soo amee Sénégalais loolu message boo siy joxe lan la. te dégg naa mais y' a beaucoup jigéen ñoo si. loolu yëgaguma ko moom. yëgaguma ko ah léegi dañ ne. dañ ne. waaw animatrice ñi nga xam ne ñoo nekk ci site yi ñu bëri am na ñu ci site Soleil. ñu nekk ci site yi. waaw ah, ñu jigéen. yëgagu ma ko yàlla xam na ne yaa ma ko wax. lu ma yëgagu nag am ma ci lu ma leen mënu ci wax. ah nee nañ dañuy yor seen i moo tax dañuy nekk ci ah, dañuy dañuy laaxatu di génne mbootu jàmbur. yëgagu ma ko xam nga yow mun nga ma wax nii. waaw mais dama yëgagut li xew ba war cee mën a wax mais yal nañu yàlla defal jàmm ci koor la ñu jógee. Ah, yal nañu yàlla may ay xiiwal yàlla may la sa télé bopp may ma ko mel ko keneen yàlla teg ñu ñun ñëpp si yoon bu baax. yëgagu ma ko xam nga loo yëgagul tamit mënoo ci wax mënoo ci wax jàllale benn message mbay li li li nii yàlla xam na ne yow yaa ma ko wax ñi nga wax ne wax nañ ci dugg ci ay site yi wallaay atam yëgagu ma ko yëgagu ma si dara mais li si mënti xew dinaa ci dem gëstuwaat xool ba xam Ah, yaa ngi yaa ngi Dakar Buzz. Mbaye doo ñëw reer balaa muy seet. yaa ngi maa ngi Dakar Buzz maa ngi gërëm sama DG. Amadou Sy di gërëm ki ñëpp ñu may liggéeyandool macha allah. ana Omar. Omar mi ngi fa ñoom gars yi ngi fa ak site yi nga xamante ne liggéey naa fa. animatrice yëpp a ngi nii woykat yee ngi nii ah lii dafa neex daal yàlla na yàlla def jàmm Mbaye.